teew ci ka ci ay yëfam ndax day mel ne day wax tey weddi suba noonu la état bi doxale léegi nag ñun ñi nga xam ne ay sëriñu daara lañ ak ñun ñi nga xam ne ay imaami jàkka lañ ak i jumaa ak ñi nga xam ne ay ustaas lañ wala ay gindikat lañ ay yeetekat lañ ak ñi nga xam ne sax dañoo def seenu cër ci àdduna muy toog yor seen kurus di ñaan ci yàlla ñooñu la ñuy woo woote bi nag du dañ leen woo ñoom génnee ci citoyen lamdaar yi ndax ñëpp la yàllaa leen bokk bind te effort bi mu def ci imam bi moom la def ci caméraman bii pour mu judd kenn ku nekk nag la nga nekk yàllaa ko sàkk mu xalal law yoon ñu bëgg a doole boole doole askan wi ñi nga xam ne jàpp nañ ne lii Ousmane Sonko di dund teguwul ci dëgg te teg na ci ak tooñaange képp koo xam ne jàpp nga ne loolu kat maanaam amul dëgg lenn lu ciy ceslaayul dëgg lu nekk ci lii ñu koy teg dañoo bëgg ñu ànd bokkuñ ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala mu àtteel ñu dëgg ba Ousmane Sonko mbooleem pexe ak lu ñuy jéem ci kawam loo xam ne dëppoowul ak dëgg yàlla bu mu ànd ndax ku wax mu yegg nag yàlla la neex te bu kenn wóolatut yàlla ñun de wóolu nañ yàlla bu kenn doylootut yàlla ñun doyloo nañ ko bu ñëpp sànnee yàlla ànduñoo moom it ñun sànni ko ànd nañoo moom wóoluwuñ doole kenn ku dul doole yàlla subhanahu wa taala bëgg nañ yàlla mi nga xam ne mooy attekat bu mag bi mu atteel ñu dëgg ba Ousmane Sonko ñaar yi ñu war a atte ci moom benn bu ci nekk mu am ca ndam lu rëy lu ñëpp siggi képp ku koy bañ tamit bis booba na nekk bis buy tàng sa xol te doo ca am doo ca am mbégte di ci ñaan tamit loolu bu yàggul rek am na ñu gisoon defoon naa ko sama biir kër ci yëg-yëg rek laa ko def woon waaye nag bii yoon mbokk yëpp a ko yëgandoo ñu yëg ne 46 département yëpp am nay daaray alxuraan am nay soppee Ousmane sonk am nay sëriñu daara am nay imam ñu bëgg boole dawla yi 46 département yëpp lu ko tàmbali suba àllarba alxemes ba ajjuma jooju ñu def ko bisi ñaan waaye rawatina nag alxemes gi ndax kenn ku ne mën ngaa beru ci sam néeg te yaakaar naa ne ku nekk ci ñun yaa ngi beru di ko ñaanal waaye jàpp naa ne julli beru dem ci mbooloo mi julli la yàlla gën a bëgg kon ñaan beru dajaloo ci mbooloo ñaan mooy li yàlla gën a bëgg ñu ci biir daara ci biir jumaa yi képp koo xam ne da ngaa nekk Casamance nga am yëg-yëgu ne lii de man ñii ñii di wax nii kat maa ngi ñoo ma bokk yëg-yëg am na numéro yoo xam ne danañ ko publier wala sëñ Mansour dana ko joxe su ko defee nga ne man de maa ngi Casamance danañ la wax ka ñu nekkal Casamance ak waa Casamance bu ñu ko bëggee def fan la ñuy daje. ku nekk Louga bu yëgloo ci numéro yi danañ ko ne Louga kat kii yu fa nekk bis nangam la heure nangam la alxames la gannaaw takkusaan comme waxtu wii buñ jullee tàkkusaan ca la ñuy nekk ba tisbaar ba ba timis ba gannaaw timis lépp nag loo xam ne dañ koy ñaana yàlla rek mën nañoo dajaloo def ko muy jàng ay yaasin jàng mu miitu tabat xulya euh, euh, lixlaas jàng alxuraan ba mat ismul jalaal bax baxaa latiif bàyyiwuñ dara lépp loo xam ne ba ci sayfiyu lépp loo xam ne daal am na cëslaay ci alxuraan ak sunna te man te yàlla ne jaar leen ca ñaan ma ma ma may leen ba ñu ñu ku ca woote te ñaan ca li ñuy defit menacé wuñ kenn ndax mën naa am sax lii ñu yëg juge yi war a atte yëg nañ kon nekkul ñu ne dañoo woote pour dal ci kaw benn politicien ñaan ko mu dee wala dañuy dal ci kaw benn juge ñaan ko mu dee dëgg daal yàllaa ko moom te mooy alali yàlla képp ku bëgg a taxaw xeex dëggu yàlla gi yàlla boo jariñoo la tax nga koy xeex su fekkee dañ laa ger ngir nga xeex ko lañ la gere yàlla bu mu dem sa biir yàlla na ko yàlla boo ko jariñoo bu fekkee da nga koo def dañ laa woo wax ne nëbbal dëgg ngir ne kat da nga am wàccuwaay sàngam maanaam da nga la fal poste sàngam wala danañ la yéegee maqaama sàngam soo nëbbee dëgg gi poste boobee bu yàlla bu ci saw sawtaat dëju barke alxuraan te bu amee ba noppi maanaam saa bu nit toogee làq dëggu yàlla googu xeex ko ba tas yaakaaru askan bis boobee yàlla na nekk sag wëlbatiku di deltu gannaaw yaag sag njaboot ba mujj nekk ku kenn dul tuddati ci kaw suuf ba asamaan ak suuf raafal la ñi ngi koy ñaan yàlla mi nga xam ne am na kàttan gi am na sañ-sañ bi am na man-man bi ndax dëgg kat ku ne ko sañ a nëbbu ba mu des ab juge yàlla subhanahu wa taala li muy kawe kawe ak li muy moom moom nit ñi d'accord na moom yàlla nekk ab juge toog atte parce que dafa dafa jàpp ne yàlla ci boppam dafa jàpp ne ñaar rek moo tax nit war a àtte mooy xam dëgg ba noppi nangu koo àtte maanaam nangoo teg dëgg saa bu nit amee ñaar yii rek ku jekk la ci àtte mooy xam dëgg tey jii ku ma yóbbu woon ci àttekaay ba mën naa am nit di wax loo xam ne du dëgg ñàkkum ñàkk gu ma ñàkk xam looy réew mi dina tax du ma xam xam kii wax na dëgg wala waxul dëgg kon li jiitu ci àttekat mooy na xam dëgg waaye ñaareel ba ca des bu ma xam ne mooy tax yàlla sax nangoo bokk ci mbir mi mooy nangu dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa li muy gën gën nit ñi nangu na nekk attekat mooy toog ñaari nit jote mu atte kon keneen koo xam ne soobu nga ci yoon ba yàlla def la ab attekat bokk nga ak yàlla ab ab ab ab booy toog bokk nga ak yonent bi siis booy toog képp nag koo xam ne da ngaa foyee dëgg lu la yàlla teg jëlal attekat yi nag jàpp naa ne ah amul luñ leen di wax ñoom xam nañ seen liggéey waaye nañu xam ne rek Ousmane ko lépp lu nit di jël di ko teg ci kawam na ko nat na xam ne loo ko def def nga ko waa réew mépp noonu la deme ndax moom li mu nekk ndimbalul yàlla subhanahu wa taala dong nga ko ci fekk bërki démb Macky sàll mii mu seqal wax ji taxaw na ca ca ca ca euh, Kaffrine gii matul ñetti at ci gannaaw wax ne nit koo xam ne sa politique yëpp mooy topp internet bi di commentaire di kacc kacc yaakaar ne yaa moom réew mi ba élection ya di nga xam ne amoo dara Macky Sall moo ko waxoon Sonko bu ñu demee tey ba élection yooyu mu ko woon nañ ca dem tey mu taxaw tax kànnaŋ kanaare ne ko du ma dem ak yow élection war nañoo wax diggante bi lu fi soppiku ba mu tënku woon ko ne ko nañ dem élection tey nanguwut a dem ak moom élection kon lépp loo xam ne day suuxal doomu aadama baa mu koy suul baa mu koy tax nit ñi fàtte ko rek. teg nañ ko Ousmane ko te teewul yàlla mi nga xam ne moo bind te moom kattan moo ko téyal boppam bokk na ci nag li tax suñu xel dal mooy ñii fi toog kenn koo ci mën a woo ci aw fen mu wuy si la amut kenn koo ci mën a fay mu lay waxal amut sëñ taahiru mii ba ci imaam Moustapha sëñ Dramé ma neen mi nekk parcelle euh, imaam sëñ Pa Dramé ba ci Ibrahima Dramé ba ci imaam Dramé mii toog ak mbooleem ñi nga xam ne dañoo nekk ci Euh, niti daara yi ak imaam yeeg ñëpp bi Abdou juuf di ne fii fii la leen fekkoon mosu leen a jaral dugal ci seen làmmiñ mosu leen a jaral dugal ci seen image bi fi ab lay Wade yi nekk fii la leen fekkoon mosuñu cee gis lu leen jaral dugal seen làmmiñ mësuñoo gis lu leen jaral dugal seen kàddu wala seen image di ci feeñ tey bu ñu demee ba mbirum Ousmane Sonko xàmmeetuñu kuy politicien xàmmeetuñu ab ab ab ab muudu muudu buy wut liggéey bu nekk bitim réew xàmmeetuñ ab journaliste xàmmeetuñ sëriñub tariixa xàmmeetuñ ibaadu xàmmeetuñ tiijaan xàmmeetuñ murit ñépp booloo am benn bëgg-bëgg am genn yëg-yëg mooy jël Ousmane Sonko teg ko ci bopp senegal jàpp ne loola dana jëriñ réew mi képp koo xam ne da ngaa bëgg a taxaw ngir salteel loolu na nga xam bu baax nga jël say responsabilité xam na am nga affaire ak ku ne loolu na nga ko xam am nga affaire ak ku ne te billaahi la si laa ilaha illaa huwa xeex bii ngeen di xeex Sonko du ngeen ci am ndam ci saahir du ngeen ci am ndam ci baatin billaahi si loolu moom mën nañ koo waat ci yàlla mën koo waat ci alxuraan ndax xam nañ li topp Sonko bu doon ay caaxaan baa ak fen du ko duñ ko topp te mësuma fàttaliku ci histoire àdduna fu yàlla dajalee ay ndaw yaakaar loo leen dara ba noppi tas yaakaar ja loolu musta am te lii nag yaakaari ndaw ñi la yaakaari góor ñi la yaakaari jigéen ñi la yaakaari sëriñ si la yaakaar yi nit ñi ñu jàpp ci ñoom jub képp koo ci waxtaanal ci biir nekk dana la la Sonko nekk sama biir xol loolu nag du organisation kenn du lu kenn yi may kenn bu doon bayre bu ñuy sangoo ñoo ko koy njëkk sangoo bu doon ñaan gu ñuy ñaan ñoo ko koy njëkk a ñaan lu yàlla subhanahu wa di def ci téeméeri at yu ko neex wala ñaar téeméeri at yu ko neex mu sàkk ab jaam def ca moom la ko soob yàlla moo jël def defam def ko ci Ousmane Sonko yàlla nag ba mu jëlee la muy def ci Ousmane Sonko ba mu jëlee la muy jël def ko ca ah, yonent yàlla Muhammad téewut daa jël aboo la abo abo lahab teg ko ca wet ga ba mu jëlee la muy jël def ko ci muusa daa jël Firaw na teg ca wet ga kon jël li muy jël teg ko ci kaw Ousmane Sonko du teree am ñoo xam ne seen xol lëndëm na seenu fit dëgër na réere nañ yàlla bañ nañ lu baax ñu jàkkaarloo moom ne ko mbir mi du fi amee du caagi neet Ousmane Sonko dafa dem ci kaso bi mook ñoom Bisiru Jomaay Fay kon ah yéen ko nangam nangam yonente yàlla Muhammad ma Makka la juddoo gën a bëgg Makka fépp te daa dem ba xat-xat jëlee ko Makka dem waaye tréewut ba muy demit la yàlla bëggoon ci moom génn Makka ak toog yam am na Cheikh Amadou Bamba xaadimal Moustapha mii dafa sanc Touba mu gënal ko fépp ci kaw suuf xat-xati àdduna tax na jëlee nañ ko fi ba génnee ko réew mi te terewul lam doon samp